assalamu asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki téléspectateurs yéen ñu ñuy sétane fi à travers ndindifal TV waaw comme niñ koy défé sa su rek di leen di débal champion yi di leen di débal ndaanaan yi di leen di débal borom xam-xam yi ah di leen di débal ñi nga xamné yàlla may na leen ñuy dimbale askan yi di dimbale jaam yi ñu ñëwaat nak ah ci borom jinne yi xaritu jinne yi bay as lom fort de Joal Fadiouth borom Grand Yoff borom HLM Grand Yoff borom Cité Kona Chap borom Ndakaaru ki moy bay as ah lom de Joal Fadiouth borom jinne yi borom kéemaan yi Baye Ass ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ndindi maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu waa réew mi ak waa bitim réew di leen baalu ak di leen baal ak bisimilah. Baye Ass boo xoolee euh, biñ fiy mujjee ñëw mu ngi xaw a yàgg lool trop te gars yi ñu di ñu laaj ay questions ah des fois nga toog ba nit woo la nee la Baye naa muy def li gis naa muy def kemaan yi gis naa muy def kéemaan yee mais nag dañ ciy ñëw. par étape par étape mhm. mais dañu ñëkke ci sa sunguf boobu nga xam ne mhm. sunguf bu kéemaane ci wàllum liggéey koo xam ne nit koo xam ne dañ ko liggéey wala nit koo xam ne cat da koo topp mhm. sa sunguf soosu lan mooy secret bi euh, nindi laaj nga ma lu ma neex sunguf soosu képp ku ma ko jox soo ko sangoo di ma oo téléphone ne ma bàyyi as sama yaram yëgatuma ci dara képp ku ma ko jox di nga caalit nindi jëlal sunguf si bu baax sunguf saa ngi nii li fi newoon jeex na mhm. bii dañ ko defaraat bii dama ko defaraat man jënduma dara ci marché mhm. di ko andi si néeg bi xanaa li nga xamante ne yu sew yooyu mhm. ay béjjën ay witeen ay yooyu loolu ñi may liggéeyanteel di ñëw fii si biir néeg bi xam nañ ci dara sunguf si dañ koy sangu wala dañ dañ koy kii wala nu fa demee noonu. sunguf si dañ koy sangoo. Mhm. benn. Mhm. dafa am lu ma lay woon fii ñu doog a continuer. Mhm. parce que euh, loo gis rek na leer. parce que ni nga ko waxee noonu. noonu la demee. ñu bari ñu ngi ñu ngi laajaat sunguf bi gis nga sunguf bi ndindi. li du li mbaam muy naan. Yedou mbam mwenan Bayoul An ge bayina Mdesit bi la nyukase Soun oufti Mdesit bi la nyukase Soun oufti Dok kowe Siker Dukis nan mwenye men nou lou kawa toye Soun oufti Dukis nan mbam mi An ge bayina An ge bayina Lègi kharan lii lan la. lii. mbaam la wala fas fas bu dee bu dee waaw fa mu tëddoon. Mhm. suuf soosu ànd suuf si. Mhm. lii lan la. mbaam bu fa mu tëddoon. Mhm. ànd naag suuf si. dégg xanaa suuf si moom tooke la. lii lan la lii du yax bu ñuy lakk. waaw yax bi nag du ma wax yaxu lan la. gis ko. waaw ànd naag sunguf si nga doog a andi sunguf si doo ko defar doog ko joxe képp ku ma ko jox bépp liggéey bu mas a nekk sa yaram bépp liggéey bu mas a nekk sa yaram ak ku ko mën a def ak ku ko mas a def ku dul sunu borom day deñ sunu borom day deñ mhm. cat bu nekkoon sa yaram day deñ mhm. korte bu nekkoon sa yaram day deñ mhm. te daf lay topp te ku ko defaat maa ko yërëm est-ce man Baye As maa la ko wax li fi newoon jeex na. kon suñu si daal kéemaane na daal en tout cas. suñu si ku ko laal di nga ku ko laal di nga di nga oote. da koy laal rek di nga ma woo. force la. Mhm. waaw. Baye As ñu gis jamono bi ni muy doxee léegi. Mhm. xale yu jigéen ñi ay ay ndaw des ndeysaan des fois yàlla kii leen ñoom ay doom. Mhm. wala nga gis sax mère boo xam ne dafa am doom mais doom bi laataa bala muy wax rek day yéex. ah. wala mu comme waxam day ay waxam day yéex daal. Mm-hmm. comme des fois nga gis mu dem ba am deux ans trois ans. Mm-hmm. te lamiñ bi du set. Mm-hmm. dégg naa tamit loolu da nga ciy aay. Euh, Ndindi. képp ku am xale boo xamante ne dafa juddu wax ji setul. wala mënul wax andil ma ko. boo ko boo ko andee dana wax. est-ce que borom bi. xam nga Ndindi. xam-xam du ay pexe. xam-xam du ay pexe. man nag yenn saa yi duma dugg ci lu bari. Mhm. parce que damay am sax ñoo xam ne damay gis ñuy def yoo xamante ne damay damay am kersa. Mhm. mais li ma na mën a xamal daal mooy lii ñu nekk nii ci TikTok bi nii wala ci YouTube bi nii. dañ ci man dañ dañ ci mën a bañ a nekk rek waaye xam-xam dañ ko uti woon. est-ce que donn ko jënd ko nag. tar tarbi ko. Mhm. kenn mënu ma cee nax. Mm-hmm. <laughs> yaakaar naa askan wi loolu leer na. Ah. numéro bi ngi noonu ñu affiché deux cent quarante deux quatre vingt onze ah. quatre vingt huit. Ah. ah sunguf si gis ngeen dégg ngeen lu mu lu mu ci wax. xale boo xam ne wax ji leerul dafa yéex a wax. dégg ngeen li mu ci wax. mais tey. ku mën ku doxul nit. comme ay genre lafañ yooyu. ñoo xam ne tey euh, dañuy dox normal mais ñu jékki-jékki am problème booy ba ba mu dikkee leen ay lafañ. ku doxul sama kër gu njëkk. Mhm. ni ma ma liggéey woon buntu kër gi. niñ buntu kër gi Dakar dama fa liggéey woon pour pousse pousse bu ñëwee rek day jàll si. est-ce que. ku ku tànk yi bañ bu ñëwee ma dindi ko ba mu set wicc doxloo ko. Mhm. ku ku taxaw jigéen bu taxaw mënul am doom. Mhm. bu ñëwee ci kattanu borom bi dama koy appal. waaw bo waxe ci jigen tamit nga wax ci góor yi parce que amna ay góor yo xamne des fois jigen ni duñu febar mais góor yi ñoy febar aussi. waaw fofu la doon ndini jere hmm. jeuf way muy day nek ci góor day nek ci jigen muy ko góor ki it dafa koy dindi mu am dom ci katanu borom bi ndindi. Hmm. ku ke febar be ndax. Hmm. jege jabar ak jekar kenn ki febar be du mëna sangu du mën dara. nga bayyi ki febar di faj di faj ki febarul est-ce que. ñun lolu jang nañ ko dañ koy liggéey da ngay faj jëkkër day febar, nga bàyyi jëkkër di faj di faj jabar mhm. te day wër ci katanu borom bi loolu leer na waaw ñu jàll feneen ñu gis ne temps yi ah wala ñu gis ne biir dëkk bi sax ci askan wi léegi mhm. rab di jàpp wala ay dëmm ah mhm. wala ñoo xam ne seytaan di leen di dugg ba ñuy daanu ay mbet fedding mbet fedding képp ku koy daanu nga dem fu ne man ku dem fu ku man bala maa kontaan sax ndin nit ñëw si néeg bi ne ma dem naa fu ne li ma koy tontu mooy booy na samay nopp samay client xam naa xam nañ loolu boo de boo demee fa nekk ba dajal boo ñëwee ci Baye As macha allah nga may wax yéex naa laa xam. bari na mm-hmm. sama téléphone. Mm-hmm. waaw. est que ku ku ku mbét fening daanu mbét fening ba ay mbokkam jaaxle wala mu doon jàng di jël pay di gën a baax ci classe bi benn affaire dikkal ko mënatul dara mu ngi toog di xoole ay rabak ay jineek ay def defak yu kenn xamul andi ma ko ma faj ko ba mu ne ci kattanu borom bi. est que kuy xëccu dara. muy fii muy bitim réew. Mhm. ngay passé permis bitim réew mënoo koo am. heure boo demee dañ lay rejeté ngay dugal ay kayit muy te oo oh, ma man Baye Ass ma jox ma wax la defal la secret boo xamante ne këccoo la da bokk si ñi ñi ñi ñi ñi ñi am kattanu borom bi. est que waaw. bari na ci ñoo xam ne encore ah ay affaire dëmm ñoo leen ci jàpp wala ñuy daanu rab nit nan la mën a def ba mucc ci ay wàllu nitu guddi. ndindi mhm. dëmm lu am la. Mhm. te ñu bari dañ yaakaar ne ay caaxaan la gis nga bu dee si ci kaw ga dëgg bu amee ku gaañu ñu am ñun siy ñaaw njort dañuy am benn sunguf bu ñuy bu ñuy jël sunguf boo xamante ne dañ koy jël buñ ko jëlee boole ko ak dugubu suuna bu kenn soxagul dugal ko ci gémmiñu niw bi takk gémmiñu niw bi dog koo defar doog koo suuli bu tawee asamaan si bu tawee dugub jooju ñu defoon ci gémmiñu néew bi day sax képp bu saxee képp ku bokkoon ci ñi ja ñi ñi ñi dem bu jàpp bokkoon ci ñi jàpp néew bi da ngay wax. loolu secret séeréer la ñu borom xam-xam yi borom xam yi séeréer yi xam nañ xam nañ li may wax. Mhm. ku dem mu jàpp ooyal bàyyi as wala andil ma ko. bu ma neexee ma wax loo ko moom wax si biir néeg bi ne kii moom a jàpp te kenn du ko dindi su ma neexee nag ma faj ko te bañ a def loolu. Mhm. dindi mhm. sama yaram ma ngi bugg a tàng xaaral ma ce que jajan jini nga ne sunguf bo xamantene kep ko xamantene ku ko suru wax nek diw moma ma yo, est ce ngi ci nek bi lol mo ngi yow billahi wallahi wal kitab sunguf bo xamantene kep ku ko suru di nga ne diw moma ma te deug lay don te ken diko dindi waye buguma koy joxe ndax mën na andi ay problème mhm. yoyu motax ma yu yu bari bima ma Dakar dama ko bayyi parce que Dakar ville la bokkul ak dëkku kaw yi. Mhm. moo tax yu bari dama koo bàyyi fii. Mhm. voilà ñu dem. bu ñu jógee côté boobu tamit foo ñu ñëw ci góor yi nga xam ne des fois dañuy am feebar feebar boo xam ne ci jigéen yi lañ koy jëlee. Mhm. wàllum soppis wala takk xala. comme genre yooyu aussi. Euh, soppis dama koy dindi jooni jooni soppis moom def ma ko sax xam-xam. mën naa koo maye sax. gis nga képp koo xamante ne da ngaa soppis. demal nga ut gerte bu xonq bi kemb bu xonk xoojal di yey di naan da ngay wér. voilà est-ce que jeex na. feebaru tànk yi tamit bari nañ ci dëkk bi lool macha allah des fois nga gis ne jékki-jékki tànkam yi néew yi mel ni lu ñor xom. ki fi nekkoon ki fekk na ko fi. waaw yow ki fi fekkoon noonu loolu moo ko jàpp. ndeysaan loolu moo ko tax a ñëw. ma Massar la jógee. Hmm. day wér ci kattanu borom bi avant muy génn néeg bi rek moom nee na ma bàyyi aas neexul ba neexul waaye maa ngi yëg sax maa ngi am yaakaar ne damay wér. ndeysaan waaw. yo fekk nga ko fi. fekk <laughs> voilà. loolu leer na. nee naa leen numéro baa ngi noonu 242 91 88 kii mooy Baye As ah borom Zal Fadiouth borom Grand Yoff cité Konachap. Mhm. ayca ñu jël ci beneen question. Mhm. bay As en tant que chroniqueur. chroniqueur ci biir làmb laa wax de. Mhm. chroniqueur fii ci réseaux sociaux yi. doo dem toog plateau nag di chroniquer mais. gis nañ ni saa yu combat amee. di nga ciy wax. say njort ñuy rafet. Mm-hmm. to combat yi ñu ngi ñëw combat yi bari nañ coow trop. Mm-hmm. ñi am combat boo xoolee mbir yu mag yëpp am nañ combat. Mm-hmm. mais riir riir bii di am ci biir combat yi. loo ci mën a wax ak loo ci mën a sànni. li ma mën a wax daal mooy. képp ku am combat. jogal yàgg say mbokk. ndax ndax combat ndam rek la laaj. daanu daanu nag mënul ñàkk. daanu mënul ñàkk. mais combat ndam rek la laaj. waaye combat yi ma gis yëpp ak yi ma dégg yëpp. bu ci bu ci bu ci laajul jóg amul. Mm-hmm. te bi ngay gën a néewal. Mm-hmm. wala bi ngay gën a yaakaar ne du combat. Mm-hmm. wala bi ngay yaakaar ne combine la. combat baa nga noonu. est que waaw beneen bi mooy képp koo xamante ne da nekk ànd ak sa mbër. làmb mbër mi day ànd ak rawaanam. ñu bari nag duñu bàyyi xel loolu. mais làmb ak rawaan ñoo ànd. ñi xam làmb xam nañ li may wax. làmb ak rawaan ñoo ànd rawaan bi nag day jékki rek dem. Mhm. su demee day feeñ ci mbër mi. Mhm. yéen ñi ànd ak mbër mi gestu leen loolu. Mhm. waaw su fekkee ne nag amul amul ko mun a gestu loolu si moo tax ñi ànd ak mbër dañoo war a xam làmb. su mu fekkee ne nag xamu leen loolu. da ngeen di oote ne sunu mbër mi daal dafa xaw a bàyyeeku ci làmb ji dafa xaw a. nagam nagam ci làmb ji. waaw bu ko defee bu ko defee dinañ dinañ dinañ ci def pexe. avant combat bii jot. que waaw mais bu fekkee ne dañoo bàyyi nag ba combat bi jot ñu def premier round ñu gis na mbër mi mbër mi nekkul. Mhm. nañ ko nàccal. ñu nàccal ko. waaw dagg yaram bi. góore waay. Mhm. ba ba deretam génn. Mhm. su deretam génnee rek ah euh, lépp luñ ko defoon jeex na. est que waaw loolu leer na. loolu leer na yéen ñii accompagner mbër yi. bu ñu jógee foofu nag ci lamb lañ joge mu am ñaar ñoo xam ne tey. mënuñoo def ak yow interview. te tudduñu seen tur. Hmm. ñu gis ni nga mel ak ñoom ku ci mel ni Yaxya Diop Yékini ak ki nga xam ne moom mooy bala Balago sek say relation ak ñoom. Euh, Ndindi. Hmm. ya Yaxya Diop Yékini képp ku ñëw fii di ma ko laaj. Hmm. yaaya sama rakk la. sama xarit la sama doom ndey la. Euh, man jàkka ji may jullee. ak këram sorewul maanaam jàkka ji may jullee tabaski. ak korite ak këram sorewul moom nag ci beneen jàkka ja jàmmagen fa lay jullee. Mm-hmm. mais heure bu ma jullee ci jàkka ji. Mm-hmm. bay jógee ci jàkka ji damay damay jaar këram. parce que bu ma ko fa fekkee. Mm-hmm. ñu nuyante jàmm sant ma ñibbi. bi ma ci gën a marqué nag. Korité ren bii bii bii bii bii. ci saal bi lay toog ci saal bi. ci saal bi. boo yéegee première. këram boo yéegee première. boo ci da ngay da dal ci saal bi. xam nga koy nëbbu du def lool ci salle bi lay toog. Mhm. ku ñëw fekk fa man bi ma yéegee première bi ma ne tel ma ne salaamaaleykum moo ma fay ma toog fi mu toog ku ñëw fag ñu fekk. ku mhm. ñëw fan ñu fekk muy terle. Mhm. muy terle. xam nga kuy nëbbatu du def loolu. ku bon du def loolu. ku nay du def loolu. li ma la wax nii sama kanam la. maanaam daal moom nit ku yaatu la nit ku ubbeeku la. nit ku yaatu la nit ku ubbeeku la nit ku am personnalité la nit ku jullite la nit ku baax la. Yékini Jóob Yaxya nit nag boo ko jegewul doo ko xam. Mm-hmm. man faruma ak kenn. Mm-hmm. Serigne Bamba faral. est que man Bamba. xaadim. Mm-hmm. man taalibe jàmbur laa naa ko ba sonn. man bu ma amee koo xamante ne dama koy tàllal loxo wala dama koy ñaan. xaadimu resol lay doon Serigne Bamba. waaye te nag wax mbaaxu nit du wàññi sa mbaax. dara Yaxya daa baax. ndeysaan te ci mbaaxam ci ay mbokkam la ko njëkkee. ñu ñëw ci Wally Seck ak Saneex Saneex Samb. <laughs> ñoom tamit xam naa foog nga wax ci ñoom. nga ne ñu ñëw ci. Wally Seck ak saneex Samb. Wally sama doom la. Mhm. man maa ko bàyyoo man maa ko doomoo. Mhm. Wally Seck nit ku baax la. Mhm. nit nii nit ku fekk nit ku baax foo ko fekk day rey rek. Wally buy buy buy bu nekkee ci kaw kaw kaw chaîne bi sax day rey. bu nekkee ci émission day ree foo ko fekk day ree jàppal lii ma la wax Baye mbay moo ma ko waxoon nee na ma nit ku baax foo ko fekk day ree rek te Wally nit ku baax la nit ku laabir la mhm. ku bugg waaw góor la mhm. tey nag euh, ndindi mhm. Wally ku yebu rek nga def ci moom ndànk man du ma sori foofu ndax bu ma soree foofu dañ koy gisee neneen waaye ku yëbu nga def ci moom ndànk xam nga Wally moom moo wax ne Wally du neenu neen xam nga moom moo ko wax wax na dëgg de Wally man euh, ndindi man du cuune de man du ma cuune te ku ma xam-xam ne xam naa dara. Mhm. man damaa uti woon xam-xam. dox xam-xam jàng xam-xam di fanaan ak ay jinne di yenn ak ay jinne di yóbbaale ay jinne di leen yóbbu ba biir géej. Mhm. ba si sama caatu yaay sax xam na ci dara. Mhm. képp ku ma bokkal nangu nga loolu. fa xaalis bu nekk jox nañ ma ko ci wàllu jinne kon lu ma la wax ci nit rek nangul. Wally moo waxal boppam ne man du Wally Wally du neenu neen mm. ci benn woy bu mu ko woy mm-hmm. xam na xam naa sax woy bari nañ mm-hmm. mais du neenu neen beneen bi mooy bàyyoo la bàyyoo la mm-hmm. man bu ma ko gisee rek man Wally ma ko bëgg sama biir xol be su ma ko gisee rek su ma ko gisee rek dama koy gën a bëgg waaw boo xoolee boo xoolee boo seetloo sax yow boo dugg see waaw sama sama yu seen télé bi dafa am youtube mhm. Wali nga fay fek mhm. wala sa neex Deug la wala de? waaw surtout waaw sa neex nak. Ni <laughs> ci dess yëpp nak mhm. bañu ma ci kenn ñom ñëpp sama xarit lañ wante lima la mëna xamal moy dama la ne Duma ma fofu. Wali waali bayo la Ñak yaay bay, ñak ku taw bu yaayam kon xam nga lolu, lolu metti na de Hmm. waaye na ko mu borom am na ko mu tane yal na ko fi yàlla bàyyi tey tey tey tey tey wéral wéral cëram wéral baatam beneen bi ma ciy li mooy waali mii nga gis nii noonu lay mel ba ba muy màgget parce que gis na même bu bàyyi woon woy tey bu génnee nit ñi topp ko man bàyyi as la ko wax li ma wax dama koo xam li ma wax nii dama koo xam même bu bàyyi woon tey bu demee ba am téeméeri fu mu génn nit ñi topp ko loolu nag mbiru yàlla la baatin la waaw il faut looy gëstu lay doon man ko xam. ñu jàll ci beneen. Sanex sambu nag. Eh, eh, kooku moom moo nekkoon sama théâtre kat international Sanex Sanex Samb Sanex Samb moom moom ñëpp xam nañ ne moom mooy mooy sama théâtre kat. Mhm. moom moom moom moom mun ñëpp Sanex daal maa wax ne ko Baye As nee na. Mhm. yaay yaay waayam. Mhm. waaw bëgguma ko bëgguma ko guddal. xam nga Saniya <laughs> moom ay soccoom ay ay ay démonstration ak ay bagage am doo nag dafa man macha allah yal na ko yàlla wéral. Mhm. Ass tey ñu boo xoolee chaque jour daanaka ñu dégg accident am na accident yi. Mhm. chauffeur yi. ñi naan chauffeur yi ñoom ñooy euh, seen dawal moo sellul. ñi di naan yoon yi daam lu ci nekk. mais chauffeur yi nan lañ mën a def. ba gën a mucc ci accident yi. Ah, parce que accident yi bari nañ trop. waaw góore waay. Mhm. Euh, ndindi. Euh, yoon yoon yi dafa am lu ci nekk dëgg la. jinne mhm. day dëkk ci wetu tali. jinne mhm. day dëkk ci wetu géej. jinne day ne dafa bëggu toilette. jinne jinne maanaam bu ko toppee day gudd. mais fépp foo foo day foo foo juux. ngati ñàmmi ngati Mhm. comme ku doon kuy baxal ñambi kuy togg ñambi mhm. ci cin ba ubbi cin li mhm. ngat boobu heure bu la duggee rek xamal ne même boo yoree oto boo yoree leneen xamal ne fii jinnee ngi fi li ma xam si jinne daa bari du ma ko détaillé ndax damay bañ sax ñu ñu ñu ñu pirate ko waaye li ma xam si jinne dafa bari xarit jinne yi ngay dégg du ay caaxaan <laughs> dafa yàgg booba dugguma Dakar te bu ma ko nekkoon fii di ko wax day jël sunu temps bi Mhm. waaye daal li ma la mun a xamal mooy képp kuy tukki. Mhm. dem ci gaaraas di tukki. Mhm. gis jaaykati banaana. jëndal ñaari banaana nga saraxe ko di nga àgg ci jàmm sa yoon day nooyi. banaana nooyul. sa yoon day nooyi di nga àgg ci jàmm. Euh, xam nga sump waaw reenu sumpu. boo ko daggee. boo ko gasee nga dagg ko. nga natt ko ci sa baaroom bii. nga ta jigéen bu ko takkee ci ndigam. du jur jigéen. boo ko mhm. tikkiwul doo jël jigéen. góor rek. reenu sump. Mhm. beneen bi mooy penc. Mhm. fi góor ñi penc xam nga am na ay seen dëkk yooyu seen côté dëkk yooyu. ay penc fu ñëpp di toog. waaw waaw ñëpp di toog. comme grand place yu comme grand boo fa amee boo boo fa amee galan boo ko takkalee jigéen du jur boo ma boo moytul dootul jur jur jigéen sax bu ko tikkiwul. penc yi ñan ñoo ciy toog jigéen góor ñi rek. góor rek li ci ëpp yëpp góor ñi la. voilà. est léegi Baye As. Uh-huh. wax ji am na solo car macha allah. Hmm. mais tey li ngay tàggatoo mooy sa may parce que tàmm nañ saa yoo defee émission ba pare. Hmm. da ngay may jaam ñi lu ñu jëriñoo. Hmm. tey booy maye tey lan lay doon. Euh, ndindi. man man jigéen ñi laay may. tey. jigéen ñi rawatina nag ñiy sëy ñiy sëy képp koo xamante ne da nga Mm-hmm. nekk sa néegu sëy mm-hmm. nekk sa néegu sëy mm-hmm. kër gi nga sëy balaa ngay génn da ngay da ngay yónnee sa kër bàyyi suuf bu amee suuf kan ko yónnee bu fekkee ne danga ngaa sëyi wala heure boo demee sa kër bàyyi wala booy dem sa kër bàyyi nga ut ci suuf si bisimilah nga koy ute nga denc boo ñëwee ba sa kër bi nga sëy nga utaat ci suuf soosu bisimilaay nga koy ute encore mhm. du ñaari suuf mhm. nga boole leen sangu ko kër googu pour ñu jëlee la fa mhm. ah bu fekkee ne si sa coobare lay doon de yaakaar na te ku la fa xeex soo moytul dina dem ci suuf si lu garaaw laa la wax na aca mbokk téléspectateur kookooñ bàyyi as xaalitu Guinée yi borom si Alpha Jut ah borom si te konaasat fii te as léegi fu ñuy jeexalee mooy euh, sa diggante sa diggante Fatou Laobé mu am lu dox seen diggante ba dégg nañ sax màggal bi weesu nii xaw ma da ko doon war xaalis pour jox ko ko loolu boo ko mënee expliquer ci lan lay doon. Ndindi. Mhm. Fatou Laobé. Mhm. bi doon woy te bàyyi woy moom laay wax. Mhm. man ma man sama soppe man maa ko ndeysaan ngir sëriñ Touba. te sax li mu koy déglu aussi. waaw mhm. ngir Serigne Touba. Mhm. sama sama sama sama oto. Mhm. sama kele moom mu ngi ci. moom mu ngi ci man dama ci tànn ay ñoo xamante ne ñu ngi ci. moom mu ngi ci. Fatou Laobé sama soppe la man ci ñi ko sopp ci laa bokk. moo tax su ma duggee ci TikTok bi li ma ciy dugg sax bariwul. ba gis ku koy critiquer lu critiquer boo xamante ne. dafa sévère. dafa sévère rek. Hmm. man damay romb jàll. Hmm. waaw te du ma bëgg ku ko ku ko critiquer ndax dama ko bëgg. Hmm. ndax sëriñ Touba rawatina sëñ Baara mi muy woy. beneen bi mooy Soko. Soko boobu noonu nekk bitim réew. waaw. yenn saa yi day critiquer Fatou Laobé. te man Soko dama ko bëgg trop sax barke Serigne Touba xam nga li moo tax li tax dama bëgg Soko. moom moom moom bu bu bu bu bu sañsee bay fecc feccam yooyu rek. dafa xam moom dafa xaw a jantal kaar macha allah. Mhm. daf may neex duma ko bëgg a romb. Mhm. moo tax bu ma sañoon dootul kay Fatou Laobé daal. parce que man dama ko bëgg sama xol te dama bëgg Fatou Laobé. Mhm. mooy ñaar mooy mooy mu ngi mel ni ñaari mbër yuy bëre. xam nga doo na a xam koy faral. waaw waaw man tax soko maa lay ñaan man bay As maa lay ñaan. nga dëkk mbuur ma dëkk Joal. benn lañ. Petite Côte bi la. Petite Côte bi la. maa ngi lay ñaan sunu Fatou Laobé yi. nga nga nga nga nga nga nga kii ko rek. maa ngi lay ñaan nga bàyyi ko rek ci lu baax rek. waaw te ndax Fatou sama nit la. beneen bi mooy. xaalis boobu ngay wax man maa ko génne fii def ko ci enveloppe. am benn artiste bu nekk fii sama néeg. ma ne ko lii law Laobé moo ko moom. dama ko def dama ko ko jox addiyay Serigne Touba. Mhm. pour màggal gi. ci mhm. fi artiste bi fi nekkoon bëgguma tudd turam. Mhm. yor numéro ma weef ko ko. utuma sax mu xam nga mu ne ma yoruma numéro gàttal xaalis bi naa wër numéro ba am ko dinaa la ko envoyé. billahi wallahi wal kitaab moo ma ko wax. mu dem ñaari fan ñetti fan ma oo mu ne ma numéro bi de man mënu ma aw ma ko. xaalis booba nag. def naa ko feneen waaye ba tey. Hmm. su ma amoon numéro bi. Hmm. yónnee ko ko. est-ce que. ndax ndax tuddoon naa ko ci ba pare. Hmm. loolu nga dégg noonu la demee. jërëjëf waa kay jërëjëf. Baye Ass looy tàggatoo. nit ñi maa ngi lay maa ngi lay sant di la gërëm. parce que tey bu bëggoon nañu guddal sax. waaye da nga ñëw fekk fi ay gan yoo xamante ne il faut nga xaar. parce que xaar nga presque bépp ba ma ba ma julli timis sax ba pare. Mhm. ci soog a commencé. Mhm. te yoon ñamul si benn. Mhm. di la sant di la gërëm di la ñaanal wér ak wérle. di ñaan seen bi dem ci kaw. ci kanam barki salaatul fatiha barki bisimilah rahmaani